Mouhalim TV xibaar yi wér te wóor ngir mën di am xibaar yi abonné leen te bës cloche bi. jërë ngeen jëf yéen mbokk yi nga xam ne yéen ak ñuy bàyyi xel ci seen seen bii di Mouhalim TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara jox leen seen wàccuwaay lu bëree bëri euh, di kon tey ci euh, garage Daarul Muxti seet si commerçant yi ak marchand ambulant yi nga xam ne ñoo ngi ci millier bi waaye nag dégg ngeen ndigal li nga xam ne jib noo ñu war leen a yëkkati ñu ñëw tey waxtaan ak ñoom ba ñoom ndigal loolu yëg nañ ko waaye itam ba xam am na feneen foo xam ne fa lañ leen dikk ginnaaw buñ leen yëkkatee waaye nag yëg-yëg giñ ci am en tant que murit ginnaaw bu ndigal jógee ci seenub sëriñ waaye nag gan ñaan lañ mën a ñaan seeni kilifa ak yi ci ajo kon nag topp leen ñu bu baax a baax ñu ànd ak sunu caméraman bu ñaawul bi muy Baye Amsa Niang di ko nii di ko ziar waaye nag fas yéene ànd ak yéen bu baax a baax ngeen ànd ak seen xarit seen mbokk Serigne fallu Bamba Dia ziar bu baax di ziare di ziare suñu waa site bi di rafetlu baax euh, euh, yi nga xam ne ñoo ngi ci hmm. hmm. euh, yëkkati googu yëngu waaw man de yëg naa ko ci nit ñi rek te itam ni ma ko yëg ci nit ñi jàpp naa ne la amee ndaxte mbir moom wax dëgg yàlla siiw na te comme jàpp na ne siiw na dañuy jàpp ne lu am la. en tant que jaaykat fii ci euh, garage daal. Mhm. jot koo xam ne ñor na fii daal lay avertir ne dañ lay yëpp. non gisaguma ko nag ci nit ñi laa ko dégg rek comme ni ko ñeen ñi dégg waaw. non loolu ba tey dégguma ko waaye nag am na koo xamante ne nee na ma ku jege maire bi. bi mu ko wallaayee ndax am na fenn fu ñu jox ni ko maire bi xamal amuñu fenn fu ñu leen jox yéen ñëpp maanaam fa pàkk bu mag ba nekk foofu ngeen jëm ndax instant yi amuñu fenn xamante ni maire bi am na ko bu dis bu niwul bi ko jox en tant que borom njaboot ñu war laa yëkkati amul fenn fu ñu lay jox ban yëg-yëg nga ci am ak ban message waaw loolu moom képp koo xamante ni ab dépasse war na la soo ko yëgee dana la metti waaye en tant que ab taalibe rawat na nga nekk ci dëkk bi Touba comme day ndigal li ñu war mooy jëfe ndigal rek moo fi sës waaye nag doonul loo xam ne moom lu ñu gënal la bu ñu sañoon de wax dëgg yàlla bu ñu joxee dee la ba dale bu ñëw bu ñu yëkkatee danañ ñuy wax carrément ne fii nga ñu nekk waaye nag murid moom amul lu ndigal comme sëñ ba moo ko digle tam jóge ci sëñ ba duñ nangu lu rafetlu ko te di ko jëfee rek nag waaw ah, ni ma fas yée ni ma fas yéene def comme ni sa ni ko sama morom defee rek topp jéem a topp ñoom jéem a xool ci li nekk rek jàpp naa ne moom sëñ Muntaxa mi nga xamante ni moo fi tawal sëñ Tuubaa yilif ñun ñëpp su ko yëgee yaakaar naa dana doxalee neneen loo xamante ne wuuteeg ni maire bi doxee sëñ bi de su ma ko doon ñaan tey amuma lenn loo xamante dinaa ko ñaan ci ay xalaatam ndax moom mi nga xamante ne mooy xalaat yaakaar naa lépp lu mu xalaat rek loolu lu war la tey lu rafet la te kon en tant que moo fi tawal Sëriñ Tuubaa du xalaat mukk xalaat boo xamante naka suul noonu la kon sëñ bi moom du jël décision am xalaat lam xalaat ba pare mooy jël benn xalaat di ko teg ci kawam loolu moom xalaatuma ko te itam du samay teggin na yarewuñ ma ko naa ko ci nit ñi di dégg nga ko ci ligne bi. waaw dégg naa ko ci ligne bi waaw. Euh, jotul am ñu fi jaar informé la que ni dañ leen war a ah, yëkkati. ah dé dégg ma ko ci kenn. kenn yëkkati la. dé dégg ma ko ci euh, kenn. kenn yëgoo ko ci kenn. waaw dégg nga. yow ban gis-gis nga am ci loolu. maa gis-gis ma ci am mooy man li ma gis-gis ma njëkk am mooy sëñ Saliou. bi muy dund. man Dakar dégg naa fa marché yoo xam bi ma saan bi ma saan bëgg a yëkkati ci sëñ Saliou dañuy daw ñëw di ay murit sëñ Saliou jox euh, jënd marché ba jox ko murit ya kon nag murit Touba bu ñu ci nekkee di Touba amul amul itin amul géej amul lenn lu mbedd mi ñun lañ am dañ ci daan doole ñenn ñi ñenn ñëpp xaju ci marché ndax ñëpp mënuñu am ab capacité pour lu yëpp place di waay ay cinquante mille cent mille franc te am na ci mag ñoo xam ne nii ay jigéen lañ benn seen bërëngal faatu na ñu toll ci ñu toll juróom benn fukki at juróom ñaar fukki at yor taabal yi orange da ci daan seen doole soo xëyee ne leen jóg leen fuñ jëm tañ na ay morit lañ ci ci la ñuy dagg Touba Touba ci kanam ci la ñuy fay ndoxum ndoxum euh, maaxu ramati ci la ñuy joxe addiya fi ñu doon université bi suñu mëntaa di wax bu li ci ëpp doole Touba gi bokk nañ waaw léegi nag murit yi nga xam ne maanaam ñu nekk ci mbedd mi fas yéene liggéey ay ñaar fukki dërëm juróomi dërëm di ko dagg di ko jox di ko albay Sëñ Fall albay ñu koy def eh, eh, eh, ko kenn luurut la téléphone lañ ko seetaane ak dégg sëriñ Baye Fall di ko wax la man dégg moo ko ci kenn dégg ma ko ci kenn ban message ngay lancé en tant que murit man moom murit sama maam yëpp ci murit lañ juddoo waaye nag murit dañ xool Sëñ Saliou ma nga xam ne man première yërëmaa ne amaloon ku yërëm waa Dakar nga war a yërëm ku yërëm waa Mali war ngaa yërëm waa Touba te fenn fu ne suñu tubaab koy xet lay doomu adama kon nag buñu bëggee ñun ci dëkk suñu tubaab bëgg ñun ñu nekk ci bi magi juróom-ñeent fukki at wala juróom-ñett fukki at mu ret sama saw yeewi leen ñu nekk fii ci mbedd mi it yor seen tabali seen tabali euh, dàll wala seen tabali euh, seen juróomi ginaar nga xëy xëy ramassé ko gone ko ndaw koo xam ne ay millions dong la am te dara jëlee ko fenn pour taalibe yi dajale suñu tubaab jox suñu tubaab dong ci ko jëlee wala de xëy di sonal magi ay maam ci dara ah loolu loolu loolu man ci loo a kilomètre naa nañu yërëm taalibe yi nga xam ne maanaam dañoo takko tey laxasaan ci àll ba di magi jëmm daan seen doole jëf sëñ Touba te Touba sëñ Laat woote ñu fekk si ko dana woon képp ko ku fi ñëw ku ku daw ñëw ku ne boobu am puj da nga puj àjjana léegi nag na suñu puj daw ñëw nañu yërëm man loolu lay waxee. yëkkati bi de moom ñu ngi koy dégg ci journal yi ñuy wax ak ak rajo yëpp ñu ngi koy dégg baax a baax wax dëgg yàlla ñu di ko wax. mais amul kenn koo xam ne déplacé wu na ñëw ba ci yéen leen euh, dañ di yëkkati. wax dëgg yàlla de moom amagul moom gisaguñ kenn daal ku ñëw fii nii moom dañ leen di yëkkati waaw. amul feneen fuñ leen digg itam ne leen buñ leen yëkkatee fa lañ di yóbbu. déedéet ñoom ginnaaw ñëwuñu nii dañ leen di yëkkati xam naa loola tax waxuñu ni fenn ngeen di dem waaw ban yëg-yëg nga ci am ci loolu ak ban message waaw yëg-yëg bi ñu ci am moom mooy ñun dañuy tënku rek ci taalibe ndax danoo bàyyi suñu kër yi baay ak suñu kër yi maam ñëw dëkk si Touba. Euh, di di ñëw fii nag euh, njaayum ginaar di sunub liggéey ñu nekk ci marché bi nag di fi yëngu di si daan suñu doole. lépp loo xay nag euh, euh, daan sa doole dina ko may moom incha allah ñun dañ koy def même bu nu bu ñu yëkkatee woon fii tey tey bu subaat fu ñu mën a am itam pour daan fa suñu doole incha allah moom lañ def ndax dañuy bëgg nekk ay murid yoo xay ni dañuy liggéey ci biir dëkk bi tamit di di fi joxe di yor suñu njaboot waaye nag di joxe addiya incha allah. ndax xalaat ngaa dem feneen koy xalaatuma fenn lu dul man Touba xam. sama lépp itam incha allah Touba laa ko bëgg a def loolu tax xalaatuma fenn fu dul Touba rek laa xalaat incha allah. lan ngay ñaan nga xam ne ni leen di ñaan li euh, leen di ñaan di leen ko lancé timitam mooy lu luñ ci gën a mën a woyofalit ñu woyofal ko ndax Touba dëkkub taalibe la amul ay usine amul fenn fu ñuy liggéey lu dul euh, dañuy xëy rek euh, taaba taaba ci mbedd bi moom yaatu na ci Touba lool amuñu ay usine amuñu timit yeneen liggéey yoo xam ni yaakaar nañ ni mën nañ koo liggéey lu dul xëy daal jóge suñu kër ñëw te wut lu ñu jox suñu jabar loolu daal ñoom ñu ngi koy laase lu ñu ci gën a mën a wayafal daal incha allah ñoo ngi leen koy ñaan macha allah jërëjëf waaw waaw ñoo ngi kontaan ci yéen bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi war euh, di wër di laaj xala xalaati nit yi maalam ay fond maa ngi koy am na groupe moo bokk boo xam ne sax maa ngi koy suivre ñu am solo lañ maa ngi déglu seen xibaar yi tamit di rafetlu seen liggéey di leen ñaanal it euh, fu ngeen bëgg egg ci euh, ci technologie yi ak wàllu xarala gi sunu borom eggale leen fi ci barke Sëñ Touba jërë ngeen jëf. dégg naa ko de moom daa am ku ñëw fii daal leen koy yëgal wala da ngeen koo déggante noonu. dañ koo dégg rek dañ koo dégg rek. amul kenn ku ñëw ñun kenn waxuñu ko dañ koo dégg rek ak rajo yi rek mhm. waaw. Euh, ndax euh, am na feneen foo xam ne dégg nañ leen ko ne buñ leen fi njëkkat yee fa lañ leen ñun dara danoo dégg rek. ak ci ci téléphone yeeg rajo yi dong lañ ko déggee waaye kenn ñu leen ñu ne nag neen mënu kaska rajo ba pare la ñuy yëkkati waaw am ngeen xalaatu wala yaakaaru dem feneen ñun kay kun buñ soñaan buñ nu yëkkatee dinañ am na fu nu teg ndax wax dëgg yàlla liggéey rek lan bëgg ndax danoo yor njaboot goo xam ne war na war nee na teg defal te buñ leen defalul doon am ku leen defal ñun rek lañ yaakaar ban yëg-yëg nga ci am ak lan ngay wax kilifa yi nga xam ne ñoom lay kilifa yi kat li ñu wax moom xam nga ni ànd ñoom rek la ñuy def ndax kilifa moom ba waxee lam wax ba gis ko ba wax ko xañ na dara tax bu dara taxuloon du ko wax waaye nag yaakaar naa ne ah dinañ am fu ñu liggéeyee loolu rek lan xalaat de. waaw sëñ bi it li mu wax rek moom rek la ñuy àndal ndax ñun sëñ bi la am moom la xam itam moo nekk ci sunu ginnaaw ñu ne ci kanamam kon loolee boo amee li mu wax dañuy ànd ak moom nu yaakaar dinañ am fu nu liggéeyee. waaw. yëkkati boobu kay yëng nañ ko ci sunu xol. metti na ci sunu xol trop. dañoo ñëw fii yëgal leen ko dégg dan ko dégg nañ ko ci rajo bi dégg nañ ko ci Baye faal yet waxan nañ ñu ko bañ fi jëkkee ñëw. am na baay Fall yu ma jaay fii sëri ca kere ba ñuy ñibbi. ñun ma mère xam mbaa xam ngeen ni ñaari weer ci kanam lañ leen may. Uh-huh. ma ne ko waaw nun de lu fekkante ni ci ci kii kàddu sëñ bi la jógee ndigal la. Uh-huh. d'accord nañ ci. ndax na feneen fi ñu leen kay wax dëgg yàlla diggaguñ ñu fenn dañ ne danañ yëkkati rek waaye bu ñu yëkkatee ci joxuñu nu fenn de dina metti ndax danoo yor suñuy njaboot yor suñuy dayra di tedd yor suñu tegi tubaa ca kanam. lépp lu sëriñ bi santaane ci dëkk bi nu fas ko yéene ñaan ko yàllaa def di ci terlu di ci teral sunu njaboot. lan ngay ñaan kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, bopp bi. li ma leen di ñaan xanaa rek ñu may nu bu buñ nu yëkkatee fii jox nu fenn fu nu mën a toog ci gaaras bi jaay ndax nu lii dong lan xam lu mat fanweeri at a ngi maa ngi fii di fi di fi commerce. bu dul njaay ndax am nga leneen loo yaakaar loo xam ne mën nga cee sutura. ah man kay nag moom bu dee dëgg. lii dong laa xam moom laa man ndax man mënumaa liggéey beneen liggéey bu diis mënumaa dugg ay di am demi wayaas di jaay ak dem ak a dikk ndax parce que mag laa kon nag fii dong laa mën a toog di jaay di bu ma amee sama dërëm yóbbu ma amee ñaar dërëm yóbbu su ma waree teg dayra dayra su ma waree dagg Touba ca kanam dagg. fii dong laa ko yaakaar noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi nag di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi te wér waaye lépp lu mun teg ci ndigal fas nañ ko yéenee jëfe bu noon tëdd leen ca seeni lal nelawit ñu tëdd nelaw te xam ne dinañ fa fekk ak barke barke sëñ Touba yal na fi yàgg nu yàgg fi te wér yëkkati yëg naa ko waaye nag ànd naa ci mbégte ah. ndax sëñ moom lu mu def rek ci ndigal la ànd nañ ci ànd ci sëñ Muntaxa ànd ci yàlla yonteew Serigne tubaa ak defar la rek. ak defar nag xam ne dig nañ leen ko ne fa lañ leen di yóbbu. de. Hmm. ku ci dimbale nag nu sant yàlla. ndax sëñ Muntaxa lu mu def rek lu baax a tax mu def ko. ànd nañ ceeg moom nag di ko ñaan nag mu seetal nu foo xam ne mën nañ faa toog di jaay loolu rek di ko ñaan wér rek wér di ko sant di ko ñaanal nag mu dund téeméer at ak juróom-ñaar fukk. ak ñun ñëpp nag mboolem jullit nag. di ko sant rek ndax moom day defar sëñ Mountakha am day defar yéen ñii liggéey it yal leen yàlla may wér gu ngeen liggéey ànd koog noonu ak sunuy doom yàlla defal leen xéwal boole na ko wasalaam. càmm moo jóge maire yi maire bi sa maire bu Ouakam ak ànd ak ku ñu ko xamul moo dul te xamul dégg nga saa yoo weeru dee juróomi téeméer laa koy fay dégg mu bind mu bind ruus jox ma dégg nga yaa ngi dégg na wax léegi bi mu ñëwee mën na mën na ku la yebal ñeneen maire nu ma ne ko ma xool dossier bi. mu ne ma dossier bi doo ko xool ma ne ko xool du ma fay dégg nga mu dem wooyu Dóor Sow Dóor Sow dégg li ma wax chef de bi mu dem wooyu ko chef de quartier bi ñëw ne ma ngerte ngay fay ma ne ko man man man fay nangu lu jëm sëriñ bi rek dama koy def dama koy def mu ne ma boo fay nañu tëj kanti kanti bi moom Dóor Sow ma ne ko ma ma ma laal ko ma laal kii gars yi ma ne man sama permis la yor dégg nga ñu ne ma ni permis bi ma jox leen permis bi Dóor Sow laa ñu dem jël seen finance seen argent ba bu la neex dégg nga ñu tàmbali fay weeru deewu nekk qualité bu ne fii rek weeru deewu nekk ñu fay fay fay juróomi téeméer deux mille deux cent cinquante dégg nga man leen fu ko jógee ñu ne ma maire bu Ouakam lañ bu bu Mbàkke lañ jógee yaa ngi dégg li may wax maire Mbàkke lañ jógee dégg nga may fay di fay di ba mu jigi ca gars yi mos ma la wóolu ba mu jigi bi mu jigi dégg nga mu mu ñëwul la ne ko man man loolu man laal doo fay dootuma fay mu dem wooy police bi police bi dëgg li ma wax mu dem mooy police bi police bi ñëw ne ma ne ma ne ma da ngay fay ma ne ko man du ma fay léegi bu ma fayee yaa may garanti yaa may garanti dégg nga police bi nag kii ma jël numéro waa ji keroog ma jël numéro bi ba léegi jaruñu fi dégg yaa may dégg yaa yaa may dégg laa keroog boo jëlee numéro téléphone am caam moom caam yaa may dégg ba ba léegi jaruñu fi dëgg li ma wax ba léegi jaruñu ba nag yàlla def yëkkati bi ñëw yëkkati bi mu ñëwee maanaam euh, sama rak laa contacté dégg nga est-ce que loolu est-ce que loolu yàlla ñu si dugul loolu yàlla ñu si dugul ah, ah sama rak sama rak laa contacté mm-hmm. waaw kon kon combien minute ko jëme fii waaw ah, kon dégg nga bu la bu nekk kon mën foofu waaw waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey yéen ñi ñuy topp ci seen bii di Mouhalim TV gannaaw bañ jógee fi nga xam ne mooy euh, garage daaru seeti commerçant yi ak commerçante yi marchand ambulant yi euh, ci yëkkati bi nga xam ne fas nañ leen ko yëkkati ba xam yëg nañ ko wala yëguñu ko ak itam gis-gis biñ ci am waaye li ñu ñaan euh, kilifa yi. nu continué noonu ci marché Ocass bu Touba fas yene dem seeti ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ñoom itam ñu fas yéene wax ci yëkkati googu noonu lan ci gis lan lañ ci gis ak lan la ñu ñaan kilifa yi. topp leen ma ànd ak sama caméraman bu ñaawul bi Baye am sa ñaaw ñu dugg ci biir marché Ocass waaw yëkkati bi dégg nañ ko la weer la 24 la la 25 waaw dégg nañ ko ñoo ngi fas yéene jëfe ndigal tamit waaw pour bu ñu yëkkatee wax dëgg yàlla mu amaguñ ko. non non. ñu ngi la fekk ci marché Ocass les commerçants. waaw ndax am bi laa am bi laa a dem buñ wax dëgg yàlla de yaakaaruñ dara amuñ feneen tamit fuñ jëm amuñ fenn ndax ñun ay dong daara lañ ca daara ji lañ bañ fi ñëwee tasanteeg ba nga fay euh, jàng métier na la commerce dong lañ man waaw amuñ fenn fu dul marché Ocass bii amuñ guñ fenn tamit boo xam ci bu ñu yëkkatee fa lañ jëm. waaw nga gis comme solution ak boo doon ñaan looy ñaan liñ gis solution mooy ñu euh, ñu organiser ñu rek ndax wax dëgg yàlla marché bi yaatu na yaatu boo xam ne si bu ñu organiser boo comme ça casque nii bu ñu ko defaraatee waaw ñu borom borom kay ñu yoroon mbaar yi ñu defar leen casque su ko defee ñu ñun ñu nekk ci digital bi ñu nekk ci kaw trottoir bi. man na buñ ko organiser daal marché bi wax dëgg yàlla yaatu na yaatu goo xam ci buñ ko organiser ñun ñëpp mën nañoo liggéey te kenn du yàqal kenn. waaw ndax daal leer na ñun ñi nekk ci digg bi wax dëgg yàlla gënaluñu buñ sañoon am place yoo xam ci dañuy tëj ak tijji waaw duñ déranger kenn kenn du ñaax ndax fi ñu toll nii ñun ñi di wax yéen li ñuy jànkonteel moo gën a métti foofu wax dëgg yàlla ndax léeg-léeg da jënd sa bagage ñëw nit yàqal la yow yaa xam leen tax a jóg nga organiser mu ñu jàppande sa xol rek baay mu sedd waaw wax dëgg yàlla jug di liggéey nit ñëw yàqal la nga bàyyi mu sedd xam nga ne loolu gënalut kenn. lan en tant que talibé buy waaw en tant que talibé buy ñaan sëriñam daal li may ñaan mooy affaire bi ñu organiser organiser ko doxal ci yërmande doxal ci yërmande waaye am na yoo xam ne ci moom buñ bu buñ déggalee ñeen ñi daal ponkal ñi jëlee fi jëlee fi ñu ñëw doole ña wax dëgg yàlla dana xaw a metti lool te taw fi lay wax nii nii nga gis nii yàlla seede na ko ay responsable dongo fi nekk. ay responsable nag ma mën naa laa citeel fukk ñoo xam ne si nii ñëpp ay boroomi kër lañ waaw xam nga kon ak Touba moom lu mu tuut tuut tuut borom kër la waaw ñun ñëpp nga ay ay ay responsable xam nga ne responsable ba ku ko organisé ñun ñii fi nekk ñëpp képp ku képp ku fi xëy si rek loo ña dërëm woo am lu mu tuut lu mu bëri billaahi barka alxuraan da ngay dem bokk ak sa njaboot. xam xam nga kon kooku tëlu fitna tëlu tëlu violence. waaw waaw ñun daal lool la ñu ñaan ku ñu organiser jàppale ñu xeexuñ xuloowuñ xëccoowuñ defuñ dara ku ay taalibe leen ndax ci daara sëriñ yi la man daara taalibe suñu bakk man daara suñu ceex bu may laa nekkoon xam nga ne ku jóge ci keppaaruk sëriñ ñëw du du xëccoog benn sëriñam ñun daal ñu ñu li ñu ñu mooy ñu ngi sàkku ndimbal ku ñu jàppale te yàlla tax. waaw loolu dégg naa ko ah, mais ah, xaw nañoo xaw nañoo am ak jaaxle moment bi ñu toll nii ndax ñun amuñu lu dul marché Ocass bi te moom lan xam tamit ndax euh, depuis ñu doon ay xale di jàng jaar si daara ji jugee si daara ji bi ñëwee jàngul métier jàngul dara lu si ëpp commerce lañ xam bi ñëwee si marché fi leen doon daanee suñu doole. dëgg la nag euh, métti na torop nag moment bi ñu toll nii ndax euh, lakkale pare ñu teg si di la yëkkati te moment bi la yëkkati it. moment bi ñëpp xam ne ne ah, événement yi mën nañu wax ne jeex na te koor gaa yi ñëw te bu baa ah, événement yi war suñu kanam bëri na te lu lépp tamit xaalis moo koy def te li ñu yoroon lépp li investir nañ ko si marché bi doon si taxale lakk gi ñëw na lakk ko lu dogal bi yàlla la ah, liñ jotoon yor asi néew am si yaakaar pour toogaal fii yàlla fekk yàlla dimbale waat ñu ñu ñu jàppal ñu bis ne après Kazu Rajab ba pare danañ ñëw yëkkati leen te xale yi maar bi ay sën danga fi nekk mana boo xoolee fii ba 28 ñëpp ay sën lañ ay xale yu ndaw doo ko fi. nga leneen waaw xam nga ñun euh, marché gaar bi lañ ñu doon wax far yàlla dogal gaar bi si ginnaaw tuuti ay ay ah, weer si ginnaaw ay weer si ginnaaw nii lu delloo ay ñaari weer lan ñu euh, lan yëkkati gaar bi te moment bi nii benn marché boo xam ne baax na baax na ndax marché boo mën a dem tamit place ya fa nekk ay place yu jàmbur la te marché yu dafa xat. ndax marché yooyu ni nga ko tabaxee réyun marché yu ndaw la rek te marché ambulant yi parce que a na ñoo xëjul fi te marché yooyu am kon kon kon li ni ñaan mooy ndimbal di ko ñaan Cheikh Mountakha Mbacké di ñaan yàlla yàggal ko ndax ma la war pour ñaanal ko ah, di ñaan sëñ bi pour ñun ñëpp ñu ñëw organiser ñu fii defaral ñu ko ba xam ne tey ji yoon dana mën a génn di dem di dikk bu baax jaay kat bi képp koo xam ne yor na place boo xam ne tey ji ëpp na lu mat 4 mètres nga wàññi sa xam ne tey jii nekkoon na dendoo woon yow amul fu mu lal nga dugal ko foofu bokk ko fa ñëpp mën a bokk di liggéey ndax ba ba solution di am ndax instant bi moment bi solution amagul moom ndax ñi ñi ñu bëgg a yëkkati amuñ fu ñu teg xanaa kay yëkkati ñu bàyyi ñu tasaaroo rek moom daal daanaka moom la ci moom la xalaat yëpp daal waa ne ko ah, ne ñu fii la ñuy jëlee teg leen fi moom déggaguñ ko moom waaw xalaat bu moom estegul si ñun. merci beaucoup jërëjëf. waaw ñoo ngi lay siyaare di leen ñaanal yéen tamit seen site bi ah, jëm sa kaw sa kanam ba fépp foo xam ne tele yi ñoo ngi fay àgg ñu àgg fa ndax lii ngeen def tamit baax na ndax ñëw di fekk ay ñu néew doole ñi ngeen ñëw taxaw ñëw ñu ah, laaj leen ñu wax la seen soxla ak ah, li leen metti ak li ñu bëgg ngeen jàlle mi rek boo xam ne daanaka yëg bi moom jaaxal nañ bi ñu ko waxee sax ñun gëmuñ ko woon ndax dañu jàpp ne rek sëñ bi waxu ko sax alaafee bi lañ gis Baye Fall yi dem fële Porokhane ñu gis leen ak moom ñu xam ko waaye bi na ku njëkkoon bi lakk gi waaw kooku gi amee suba si ki jaar fi naan

ñu ne dañuy yëkkati ambila maan yi maa moom nekkul benn yoon man yaakaar naa bi ma ko ba ma juumoon nekk Touba xale laa woon sa am na benn korte boo xam ne fi lañ nekk jumaa julli korte ba yàgg yaa lool maa bi lakk-lakk gu métti moom kon ambila moom dootu liggéey Sénégal parce que lakk moom du jël si àdduna ndax am ngeen leneen loo leen lu dul lii yaakaaruñ leen lu dul parce que gars yi ci ay nat seen nat dootu dox ñi ci commencé ay kër kër yi dootu ñi yor ay jabar bu ñu xëyee seen dépense suba tey lañ koy liggéey da koo mën a joxe kii wax na ne koy liggéey da koo joxe nag moom soo ko xañee lu mat semaine sax xëyul moom ah, ba pare dañuy jóg rek bu ñu ba nopp ba bari moom boo demee boo ko expliqué ni mu demee xamal ko xew lépp ndax am na lu fi xewoon jamonoy corona bi xale yi génnee ba yëngal ba mu ñëwee ba yëguma ko woon ba mu ko yëgala lépp saafaro ñun xam nañu si lu mu yëg mu saafaro surtout ñu yëm si ñun ñi parce que bu dee Touba Kanam di dagg 1000 francs Touba Kanam ñoo koy dagg bu xel comme liggéey ñun ñooy dem bu dee balema tamit ñooy sonn ci canal yi ñu liggéey ci dëkk bi ñun ñooy joxe suñu xaar ñooy sonn ñooy ñàq kon boo fi jëlee ambulance ne kon dana bëri loo xam ne du doxati dina sooxe trop jërëjëf sëñ Mbaye ñoo ngi la fekk mhm. <laughs> ah, ñu ngi lay delloo kii baaba di sant baaba di xam daal affaire yi métti na mais danañ ko def parce que ñun lu ñu fekk nañu fi jamono suñu siin moxtaar suñu alaaji baare ba tey ji ak suñu saalu lépp fekk nañu fi waaw te ñun dañoo nekk dongam suñu saal boobu nekkoon nañ xel comme def nañ fa lu ma 10 ans lu ne gis nañ ko nag mhm. ñun Touba lañ dara yéemuñu te dañoo génn doog a ñëwaat Touba xam nañ dara yéemuñu waaw nag ñu ngi sant baax a baax la waa kay yàlla yokk siyaar tur weeg sant fekk ci marché Ocass nga jaay gerte waa di jaay gerte loolu nu ko gisee. xanaa ñu ànd ak yàlla rek nag loolu laa ci xam waaw. ndax am nga feneen foo xam ne buñ la fi yëkkatee fa nga jëm. ah ndox di dëgg yàlla xaw ma ko moom moom wax dëgg ànd ak yàlla rek. waaw yëkkatee fii ndax. yàlla moom du yàlla moom du wàcc kenn yàlla moom du wàcc ken waaw. ndax am nga ci loo yaakaar lu dul lii nga xam ne moom lañ yëngu. lu ma yaakaar ah. wala xam naa war sama gerte gi rek laa yaakaar. waaw. <laughs> sant yàlla sant yàlla rek. lan ngay ñaan sëriñ bi eh, ci boo ko doon hmm? lan ngay ñaan sëriñ bi ci boo ko doon ñaan ndimbal tey. wér ak xew xanaa wér ak xewal rek wér mhm. waaw rek laa koy ñaan de. di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. Abdou Lahad la. Abdou Lahad mbay ñoo ngi la fekk ci marché Ocass ngay jaaykat boo xam ne yaa ngi lal ci mbedd mi eh, ndax yéen nga yëkkati bi nga xam ne war na leen ko yëkkati. waa yëg nañ ko yëg nañ ko bu baax a baax ginnaaw bi ñu ko yégee balaa ñu doon dugg ci niyoo bi sax li waroon a jiitu mooy ñaanal ku tedd ki muy Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi tawér ndax loolu moo waroon a jiitu waaye xelay fàttu yëg gi nag yëkkati gi moom def nañ ko waaw. da koy yëg ci mbedd yi noonu ko yëgal. waa fii ñu nekk di liggéeyee fii lañ ko yëgee information bi. ginnaaw bu lakk gi amee ñu ne ñu jour tel nee nañ marché bi day jóg waaw. ban message ngay lancé en tant que commerçant ñu war laa yëkkati fii ndax am nga feneen tamit foo xam ne fa ngay jëm pour fii. waa bi ñuy lancé mooy ñun ay lañ maanaam ci ni di doxe mooy nit fu mu war a laaje ndigal du fa joxe ndigal. loolu ñun xam nañ ko waaye it ay jeunes lañ fii ñi fi nekk ñëpp koo ci xool moins de quarante ans la nekk tamit ay responsabilité kenn ku ci nekkul responsabilité amul li ñu bëggoon mooy bu ñu ko mënee am mooy jóg gi bañuñu ko waaye nit ki boo ko nee jógeel fii da ko naa jëmal fii mhm. loolu ku ne xam na ni mooy li war a nekk li ci des mooy bañuñu ku ñu yëkkati waaye bëgg nañu ko ñu organiser parce que lépp liy dox ci àddina ci organisation lay tënku organisation bi it mënoo jël ay centaine de personnes ay milliers de personnes sax laay wax yu ne ci mbedd mi nga xëy xëy xëy ni dama leen di yëkkati te yóbbuwuma leen fenn moyen de 40 ans kenn ku ci nekk nekk responsabilité yor ndey yor baay yor ay rak war a xëy jox sa yaay mu lekk war a xëy jox sa papa mu lekk war a jox sa rakk mu jàngi ku ne xam na ni loolu marché Ocass gii ku ne xam na ni Touba amul géej ah amul benn industrie boo xamante ni si mën nga ci sukkandiku ni jeunesse bi ci lañuy liggéey du géej du poor du ay usines yoo xamante ni leer na la ni xale yi fii la ñuy liggéeyee pour man di fayeeku weer maanaam base bi yëpp yëpp yëpp xam nañ ne facteur développement bi gën a mag Touba mooy commerce te base bi mooy marché Ocass mhm. kooku moom xam nga ko même boo génnee ci commerce bi sax day dugg ba ci transport bi parce que quatre coins wu Touba yëpp oto bu fi yebee wala saret marché Ocass nga koy sotti mhm. fi nga waat dellu fa nga jóge woon mhm. kon xam nga ni leer na leen yow même bu dul commerce bi transport bi sax marché ocas dëkk bi la kon kooku boo xëyee ni su dëkk bi dama leen di yëkkati war ngaa am foo leen di teg ba pare door leen a yëkkati ñun nag comme li ma la waxoon léegi nit ki fu mu war a jëlee ndigal du fa laaj fu mu war a joxe jëlee ndigal du fa joxe ndigal mais bëggoon nañ ñu toog laaj ñu suñu xalaat ñun. parce que li waroon def mooy topp mbedd mi mu jaral leen jël ay mesures fay ay nit ci communauté communauté bi ñu recenser mbedd mi kenn ku nekk ñu fekk la fa nga nekk bind ko est que xam nga li ma la wax. buñ ko bindee ba mu leer leen bind nañ ko. ñu ñu ñu leer leen ni pare na ñu dem liggéey lu ay place donte ay casque la yoo xamante ni deux mètres lay nekk wala un mètre mhm. ba am nombre de personnes bi ñu recensé ñu am nombre de casque am del siwaat ci marché bi door a joxe délai jour tel jóg leen bu ko defee nit ñi jóg ñu aménagé mbedd mi samp seen ay casque ba ñu ñu loolu casque bu nekk ñun la kat casque bii temps ngay joxe door cee dugg mhm. weer bu dee nga joxe ci temps est-ce que loolu du dugal dara ci commune bi bien ah gënul woon nga yëkkati nit ñi tasaare leen du la jural benn impo benn benn benn benn avantage en même temps lim lay jural li gën a néew ci lim lay jural mooy insécurité parce que nit mënul toll ci 40 ans jëm suuf am ay rakk ñu war a lekk mu am ndey am bàyyi lam doon liggéeyeeku si néew nga jëlee ko fa. yow boo xëyee ne ci say activité di jox sa ndey mu lekk di jox sa baay mu lekk di jox say rakk mu lekk ba pare ëlbatiku moom nga xañ ko ko ba pare ni yaa ngi ci sécurité mënta ne parce que ndaw bu liggéeyul def leneen te ça me sûr et certain que ay booyee ngi ci mbedd mi yoo xamante ni vingt cinq mille yoroon jëndee ko bagage di ci liggéey suba ngoon gu ñu wàccee gagné ci benn trois mille francs moo leen tee doon ay bandi bis bu ñu toogee une semaine amuñu ci lu ñu jàpp doon bandi te bu boobaa yow mi tëj sa kër defe ne yaa ngi lekk ka naan yaa ngi ci sécurité xam nga néewoo ci sécurité parce que ndaw bu liggéeyul def leneen bañuñu ku ñu yëkkati mais nañ ñu organisé nañ ñu organiser. merci beaucoup. waaw waaw li may tàggatoowaat mooy li ma commencé woon mooy di ñaanal Cheikh mun Mountakha mu yàgg fi te di ko ñaanalaat nag mu yàgg fi te ndax ñun xam nañ ni yàggam fi suñu njariñ la lii nii it bu bu bu bu fekkente ni am na. lii bu fekkente ni lii nii bu fekkente ni ñun wér nañu ñu ni ci moom la jóge dañ koy jëfee ni mu ko bëggee wallaahi lancim ndax xam nañ ni ndigalam njariñ rek la ñuy jural bu noon nañ génn dëkk bi tey ñun ndaw ñëpp dañuy génn dëkk bi waaye du tax ñu tee du ñu tee dooni murit du ñu tee dellusiwaat ci dëkk bi ndax fu ñu mën a dem lu ñu fa amit Tuubaa lañ koy indi ndax dawuñu lu dul maanaam jox suñu njaboot ak addiya waaye avant loolu it dégg nañ benn kàddu boo xamante ni kàddu bu ñu naqari la muy benn kàddu boo xamante ni ku nekk xam nani ni ku dib murit ci Cheikh Ibra ngay roy mais dégg nañ kàddu bopp ci genn kilifa gu toogoon ci Baye Fall biñ ne sëñ bi joxe na digal ñu aménagé marché bi la mu wax du ma ko digal waaye kilifa waru ko wax ndax toog ci kanam kilifa ak Baye yi naan ko sëñ bi na nga fexe ba bu ñu àtte kenn. mu mel ni murit di day ñaar wala wala murit yeeg Baye Fall yi dañoo am a xaajali ko wala ñoom Baye Fall yi ci boppam ñun dañoo gën a doon ay taalibe bu sëñ bi joxee ndigal ñuy ne fii di jàmmaarloog ñoom ah bam naa murit yi mu naa sëñ bi bu ñu atte kenn fii maanaam bu sëñ bi joxee ndigal ba ñu koy aminancé ñoom ñi di ay Baye Fall ñun ñoo leen di jëkk a dindi ba pare ànd ak ñoom liggéey bi bu dee ndigalul sëriñ bi la waaye nag sëriñ bi nee na sëriñ bi nee na dafa bari waaye ndax sëriñ bee ko wax loolu dafa jar def taxaw seetlu bu dee sëriñ bee ko wax ñun ñoo koy njëkk a jëfe Baay Faal waaye nag sëriñ bi bu ñu àttee kenn te nga toog ci kanam kilifa di joxe kàddu kilifa du ay wax ndax ñun xeexuñu xulawuñu ba kenn duñu àttee wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw yëkkati gi boobu dégg naa ko te lu wér la itam ndax marché bi bu dee day lakk di lakkaat te nu defee na itam ci lakk gi ci mbaari la jógee bu oto yi ñëwit du mën a dugg. mu defee noonu ci nun la ci nun la jóge ñu dem wax wax ba ne ci nun la jóge li gën mooy yëkkati gi ndax man sëñ bi yaakaar naa du def luy yàqu luy defar lay def waaw en tant que jaaykat ndax am nga feneen foo xam ne fa nga jëm luñ la yëkkatee fii aw ma ko ndax bi may ñëw a walis kese laa fi indi te li ma fi am fi ne ay million la te sëñ bee ma ko defar kon nag loo dégg ne am naa def def nañ moo ko te mu jóge ca sëñ ba loolu moom nangu naa ko waaw su ma amul leneen loo xam ne moom ngay defi jiwaat lu dul lii nga nekkoon ci marché Ocass. waaw yaakaar naa sëñ Touba. Hmm. waaw te sëñ Touba yaakaar naa ne ku ko yaakaar ku ne. Hmm. loolu amul rëccu. Hmm. waaw waaw man man ma doon jógal tey jii tey tey tey jii saay bagage du fi fanaan man jël naa saay bagaat bu yàgg waaw. lan ngay ñaan kilifa yi boo doon ñaan euh, tey euh, ci ñu xool ndaw yi nga xam ne ñoo ngi ci marché bi bu ñu fiy ñëw daanaka am na ci ñoo xam ne nii man ñi nga xam ne ñu ngi ci marché bii di jaay ñi nga xam ne gor yi ñu ma wër ba fi ñëw 81 la fi ñëwoon booba ndaw yi daana am na ci ñoo xam ne juddoo guñ waaw booba tey ñu ngi dund te li ñuy dundee mooy daanaka yàlla ndigalul sëñ bi ci la nekk nun waaw ndigal loo nee nag li may ñaan ndaw yi balaa nga xam ne ne nee nañ Baye Fall yi dañuy ñëw ci dëkk bi nee naa leen man dinaa jënd ay bale dinaa jënd ay radu nañ teggi mbaar yi ma jënd ay bale jënd ay radu man maan dafay ñu bale fii fépp radu ko ba mu set wecc def ndigalul sëñ bi toog diglu sëñ bi sëñ bi moom duñu tega di lëkk ci lu dul yoon duñu ko def duñu ko def ndax ñun ñëpp ay murit lañ te man ndaw yi ma gis ñu di fi liggéey du ndaw yoo xam ne dañuy toog dañuy naan dañuy maan dañuy def lépp ndaw yoo xam ne dañoo yor seen i mbaar di karkaral la di liggéey ku leen yëkkati yaakaar naa ne bu nekkee ci li ñu war a nekk ku nekk ci loo war nekk te nekk Touba di nga am loo loo dundee. lan nga gis di nga am solution bi ci yëkkati gi bi. yëkkati bi moom solution bi loolu rek laa ci gis man jóg jóg rek laa ci gis. waaw jóg rek laa ci gis ndigalu sëñ bi moom saa yu jógee nan ko jëfee bu ci am histoire bu mu ci am bu ci xuloo am bu ci xeex am. man dem naa ba ci sama président bi nga xam ne moom laa nekkal fële muy nday kan mu nekk fële nee naa ko nañ jël bagage yi teel a jël bagage yi suñu ajuma la ñuy yëkkati àllarba alxame euh, kii altene nan jël bagage yi ci marché bépp dinañ jënd bale nun ñaar bale marché bépp rodu ko ba mu set wecc ñu toog may bàyyi fa ali ndox ñu naan buñ mënee am luñ leen toggal ñu toggal leen ko ñu lekk ndax ndigal la te ndigal bu jógee dañ ko war a jëfe ndax nun kenn mosu cee tumurànke kenn mosu cee def dara te xam nga lii mën na noo bañ a yor ndigalu sëñ bi rek ci la nekk ndigal nag képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi te di ko wéyee loo bëgg din ko am ku wéyul ndigal nag yaa xam man daal ci ndigal laay wéy jërëjëf waaw man taaliba sëñ ba Anta Niang laa waaye ji ndigal laay wéy waaw li sëñ bi digle daal dinaa ci xëy suba ba ngoon te yaakaar naa ne sëñ Touba nee na ci dëkk bi te wéyee ndigalam li nga bëgg lépp di ko am kon nag dama leen na gone yi amul xeex amul xuloo amul jàmbat amul dara nan leen yëkkati bagage yi di tekk ak teey balaa bagage yi yàqu Baay Faal yi ñëw nu jiim leen a wutal lu ñu lekk jiim leen a wutal lu leen maye ndox luñ balee marché bi defar ko mu baax buñ ne kenn moonu teg yëkkati bi kenn teguñu ko dañoo bëgg noo defaral ak defar nag yaakaar naa ne moom baax na. aywa yëg naa ko muy lu metti lool mu daa ñëw si Fallou Col mu di ma jaay col rafet. Ah, ndax sa client boobu noonu muy Fallou ah, xalaat ne am na feneen bi dem wala yow foo ko war a mhm, fii rek laa ko xamee marché. Ah, lan nga leen di ñaan kilifa yi ci loolu. nañ jéem a góorgóorlu rek dem si kilifa yi waxtaan ak ñoom. dinañ leen joxaat beneen xalaat xanaa. yëg nañ ko waaw yëg nañ ko bu baax. Ah, bi nga bi nga ko yëgee ban impact la def ci yow. Ah, itam ndax am nga feneen foo xam ne waaw ah, nga ko xaw naa métti trop ñu doon daanaka gars yi dañoo jàpp dal bare soo ñu ko yëgal te fi ñu doon ñun marché yaakaar am ñu fenn fu ñu dem fekk ñun maanaam dañoo wutaloon maanaam tey ji bu njëkkee defee nañ yëpp ñu feneen sax bu gën fii sax garawul waaye fi ñu toll li ñu yëkkati ñu xëy suba duñu def dara xanaa ñu xëy ñëw wut amela rek loolu da xaw a métti quoi comme comme tey sëñ bi jox na ndigal rek léegi mën a def maanaam jëfe ko rek léegi après jàll ñu def benn délégation mag dem ñaan sëñ bi su defee ñu mën fee mën ni xool nañ ko organisé a liggéeyaat bi waaye comme na ba am moom met na trop waaye mënuñu dem ñaan sëñ bi ndax am nga leneen loo yaakaar lu dul lii nga nekkoon non isaay non jaay mi rek commerçant bi rek moom laa yaakaar waaw looy ñaan euh, kilifa gi en tant que talibé en tant que talibé pour fii ay ndaw doog ñoo fi nekk daanaka fii Tuubaa amul benn usine amul dara ay sëñ ñoo fi ne te maas lañ yaakaar léegi mu ne de mu jàppale sëñ mu nekk maa mën a liggéey rek loolu donc moo moo ñuy ñaan quoi sëñ bi. merci beaucoup jërëjëf yëg nañ ko yëg nañ ko waaw. Euh, yëg ngeen ko bu ñu ndax am na feneen yëguñu fu ñu war a yóbbu ak yooyu noonu nag waaye nag moom comme que ndigal la rek moom. nañ ko jëfee rek man moom lenn lu ma ci yaakaar wala dara amu ci waaye ndigalul sëñ moom bu xasee ba daanu ci suñ kaw moom dañ koy jëfee rek waaw. jëfe ko rek lañuy def moom amul lenn loo xamante ni dinañ ko ci xalaat wala dara. parce que taalibe sañ bi tey boo ko doon bi moom nu ko bëggee rek noonu lañ ko koy defalee rek moom noonu rek lañ ko koy defalee waaw waaw noonu rek lañ ko koy defalee waaw. merci beaucoup jërëjëf waaw ah, kay jërëjëf. Mouhalim TV xibaar yi wér te wóor ngir mën di am xibaar yi abone leen te bës cloche notification bi